asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mardi 16 juillet 2019 ñëw ci ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal yëglikaay bii nga xam ne nii day moo di sunu làmb wala record wala Leewtoo point ba ci Leewtoo TV daal ku nekk ñëwaat nga ci li nga xam ne moo fi amoon te coow la ba tey di wéy muy diggante Lac de Guiers numéro 2 ak booy Niang bu dee sunu làmb la moom Moussa Gningue tey moo xëy di wax Moussa Gningue nag la mu xamle daal nee na leer ba leer day nee na moom daal ci wàllum gàllaaj la mu gis kera doy na waar jàpp na ne sax day dernier buteur bi nga xam ne nii Lac de Guiers moom la sotte koo day ba nga xamee ne ne arbitre suuf la ñu war a bëre mu laajaat ñu may ko mu sotte ko butéel ba day ne na butéel boobu day lim ci bëggoon daal wala boog moo tax butéel la bi nga xam ne daal kenn mënu ko woon gis loolu daal mooy waxi Moussa Gningue nee na loolu moo waral butéel boobu moom tamit nee na daal gis na ci lam ji loo xam ne day ay bagage yoo xam ne ay xarfa xufa yoo xam ne day ci mbay gi la ko daan gise ak tafaa gi gis na ñu koy utiliser ci làmb ji ñu génne waaye kii nga xam ne nii nag moo di booy Niang nee na boo xoolee moom premier round bi day mystiquement moom moo dominé woon waaye deuxième round ba nag moom Moussa Gningue nee na Lac de Guiers numéro 2 moom moom moomee woon mu mel ki daal xëy na di ko wax moom Moussa Gningue waaye ka nga xam ne nag mooy entraîneur écurie Fass moom di rakki Mbaye Guèye di Abdou Guèye moom di nekk ca Fass moom la mu xam ne daal nee na Boy Niang ak Lac de Guiers day nee na bu ñu doon bëri maanaam téeméeri yoon wala juróom-ñeent fukki yoon nee jàppal ne match nul moom moo fay am loolu mooy ay waxam nee nag genre combat yi sax waruñu ko di ko organiser moom ab Guèye moo xëy tey di wax loolu mu mel ni daal koo xam ne nii la daal moom daal kii lii nga xam ne nii moo di xolam moom neexul ci combat bi fa mu mujjee ba tax na ne genre combat yi moom organiser ko ak yàq kese kese lay doon ndax lañu fay xaar du ñu ko gis kii di booy Niang nag ñëw na ci ne na gisul fenn foo xam ne ni wala boog Boy Niang bu fekkonte ne dafa dem songi day ne na kon dina gis lu ko naqaree naqari loolu mooy waxi Moussa yi kii nga xam ne moo di Abdou Gueye ne woon moom mën naa am lu ko naqari maanaam mën naa daanu waaye ba tey day mu ngay wax ne na nag nit ñi dañuy trompé wu ci kii nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro moom Abdou Gueye daal ne na Lac day képp kuy wax ne mënoo mënut a bëre nee da ngay wax de nee na mbër la boo xam ne nii ku mën a bëre la ku for la Abdou Guèye moo xëy tey di wax loolu waaye am na loo xam ne nii day yëglikaay bi seetlu na ko mu di sunu lam ne na laaj day fi mu nekk nii day wàllum mat sans verdict ak wàllum niil moom daa mel ni ah est-ce que nekku ca chef wala mu baatu record bi yëglikaay bi ci gëstoo Boubacar ñaa moo xëy tey di ñu wax loolu mu mel ni ki nag moom combat bu ba tey coow laa ngay wéy di polémique ba ñu nga jëm ca fa nga xam ne nii moo di CNC ba ku nekk dugal nga sa recours nag mu mel mu mel ni ki mu mel ni ki kon fi mu nekk nii CNC ñoom ñoo ca des ngir nag àttee waaye jàppal ba tey ci bés boobu nga xam ne moo amoon ci làmb jooju mu mel ni ki arbitre ba tamit day yëglikaay bi ci gëstoom jàpp na ne moom day à prestation prestation ba mu def daal maanaam taxawaaye moom arbitre ba moom da koo raté maanaam daal lañ ko doon àtte la moom ah yëglikaay bi daa jàpp ne daal dafa raté bés boobu sunu làmb xëy tey di ñu wax loolu waaye ba tey nag ci combat boobu dañ tey des de ndax coow la moom jeexagul ca record kii nga xam ne nii day moo di rëg koo gis këram mu ñëw te cumukaayal kii nga xam ne moo di Boy Niang ànd ak moom mu mel ni ki nag nit ñay xalaat ndax ñii dañuy bëre wala ñu bëre rëg-rëg moom dàq na loola de rëg-rëg daal moom dàq na loola ba mu set wecc wecc wecc record moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel noonu waaye jàppal leneen loo xam ne nii day jàppal ne waxees na ko fañ ko waxee nag mooy fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV mel ni ki booy ñang démb moom wax na fa lu yaatoo yaatoo yaato yaatu ci combat bi moom la mu jàpp day mooy dafa daan daan daal la def mooy ay waxam waaye am na keneen koo xam ne day attaqué na ko ca Géejawaay muy Balla Gaye 2 loolu ay waxi kii nga xam ne nii moo di booy ñang la waaye ba tey ci Leewtoo TV itam day dañ fay fekk lii nga xam ne nii moo di bawal sans frontière ja mu mel ni ki nag mbiri bawal ya moom ñépp la ñu dajale ci benn buum ak supporter ngir bëgg nag ne nañ day ñoom ñu ànd booloo bokk nday bokk bàyyi ku ci jógati ñu jóg topp la mu mel ni nag seen vidéo wala seen ay jëf moom mu nga fa nga xam ne nii moo di ca Leewtoo TV ñoom tafaati nag booy bool ak ngel joon nag kéwél ñoom ñi nga xam ne ay bébé julde maanaam daal kenn desul ñoom ñëpp a ñëwoon mu mel ni ki fi mu nekk nii daal la olof yi waxoon rek union fait la force wala boog tubaab baa ko waxoon maanaam daal mbooloo moom mooy doole mel ni ki waa Bawol moom loola xam nañ ko ba ñu nga ca am na keneen koo xam ne nii moom la mu nar a def adversaire am la koy wax muy kii di jokkeel jokkeel day wala boog maama Lamine mooy wax ak jokkeel maama ne na ko li leer ba leer day yow jokkeel moom du yow yaa may freiné yéeg bi ma yéeg yow tuuti nga ci arrêté ko mu mel ni ki daal maama Lamine tey loolu la xëy di ko wax waaye leneen loo xam ne nii day gis nañ ko fii nga xam ne nii moo di ca yëglikaay ba mu mel ni ki nag Adrien Senghor moom làmb dafa amoon ci dimanche jiinu génn day jàppal ka ko jël moo di Serigne Ndiaye numéro 2 ñu naan ko Coriace ci lit simple bi la amee woon ci Adrien Senghor mu mel ni ki daal loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi. salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ñëw ak yéen ci revue de l'arène bi comme ni ñu koy defee à chaque fois muy nuyu Babacar bu baax Babacar nuyu naa la namoon naa la. Hmm, ay sa fay madame Nia maa la gën a nam di la nuyu di la ziar di la wax ne tamit internautes yi namoon nañ la parce que fan yëpp ñu ngi lay laajte mais ñu ngi leen di nuyu ñoom ñi ñu suivre ci Leewtoo TV yow di leen baal di ñaan yàlla buur bi mu defal ñu jàmm ay sa fay naa la bu baax a baax. waaw Diome Babacar moom dafa maa teg de côté nee na ñaari mooy Sénégal ñuy def revue de l'arène bi ma ñu nangul leen ko rek bàyyi naar bu xees bi sama mag daal def li nga xam ne mooy revue bi Babacar ñu ñëw ak euh, yow ci jàngat bi ñëw ak euh, Moussa ñi ngi ba tey combat la déguère booy ñëw di continuer Moussa ñi ngi ñëw ci li nga xam ne moo nekkoon euh, mystique bi mu gis ci bés ba moom it mu xamal nit ñi ne dernier butéel bi ñu gis la déguère arrière pour jëli ko dafa nekkoon butéel boo xam ne day tax bu ñëwee kenn di ko gis maanaam mu invisible ci combat bi moom nee na loolu la loolu la benn beneen butéel bi waroon a jëriñ waa mais ci mystique bi ba tey nee na kii di booy Niang moom moomoon premier round bi mais deuxième round bi Lac 2 da koo dominé ci mystique bi. waaw Moussa ñu ngi ñu koy nuyu di ko di ko ñaanal jàmm gudd fan ak si làmb waaye wàllu mystique defe naa si làmb tamit lu mu ci wax rek war nañ ko mën a jàpp ndax comme li ma wax rek ca ba ci tafaa gi ba ci sax Gris Bordeaux ak yeneen i mbër yoo xam ne jàppale na leen ah làmb jooj nag loolu mu ci wax ci mystique bi mën na nekk ndax Lac de Guiers 2 li ko jaral arbitre soufflé ba na leen pare ngeen ba soufflé ba ñuy bëre mu génnaat. pour jëli biteel boobu ça veut dire que kon biteel boobu jox na ko importance trop parce que boo seetloo sax man mi newoon ci côté agent bi noonu maa gis avant arbitre bi soufflé mu ngi def appel ñi mu àndal xam naa di wax ban côté lay butéel bi nekk pour ñu signaler ko ko moo tax bi arbitre bi soufflé bañ na dañuy lewaatoo dafa arrière génn te xam nañ loolu dañ koy ter dañ ci sax dagg kon su ko ko jaralee rek ça veut dire que butéel boobu amaloon na ko njëriñ te bokkoon na ci bés bi waaw kon nag loolu yaakaar naa waaye nag làmb itam lu ne da ah, fois ñu ne mbër mi gisuñu ko wala mbër mi doon na ñaari mbër wala ñetti nangam loolu lépp ci làmb la waaye ñun nag comme lewaatoowuñu xëy na loolu moom ñoom Moussa ñi ñi ko ñi ko wax ñoom xam nañ ci dara parce que ñooy yoon mbër yi ñoo leen di ngemb xam nañ bu baax ñoom la wax leneen li ci des mooy comme li mu wax tamit si côté premier round bi mu ne ci mystiquement Boy Niang moo moom mais deuxième round bi Lac de ko moom ah man da xam naa daal li ma mën a xam mooy premier round bi moom ci côté bëre li ma ci mën a wax mooy boo xoolee Boy Niang foofu la gën a joxe premier round bi moom ci la gën a joxe man nag si cadre bëree ci cadre sport bi laay aspect mystique bi moom bi sax même bu tam pratiquement mun na dugg parce que boo demee ba def 15 minutes coono mun ah, bien sûr parce que tamit xam nga ñaari ponkal yu nga xam dañu entraîné ba am doole te xam nga ne arène nationale bee neexalul kenn suuf sa daa bëri de bokkul sax ibamaar nga xam ne da naan nii jot keek fee moom suuf sa daa bëri <laughs> voilà boo sot boo sottoon euh, maanaam 1000 litres tamit mu jël ko sin waaye moom xam nga seen ab liggéey day wóor yaakaar naa loolu nag bu amee ñu di ay ponkal contact bëri ku ne seet foo jaar te mënoo jàll su ngeen demee ci deuxième round bi moom faaw sonn am na fa mais boobu bi ñu duggee deuxième round nag daa mel ni nag moo gën a joxe yaa ngi dégg mais loolu lépp li la koy li lay wan loolu daal mooy que ni combat la ak Boy Niang moom combat bi nga xam ne daal bëri na coow trop ba tey ay coow li jeexagul ba tax euh, ki nga xam ne mooy Abdou Gueye nekk coach ci écurie Fass moom tamit euh, géwél wax na ci combat bi moom nee na combat bi boo ko xoolee rek xam ni à quatre vingt pour cent nul la mënoon joxe parce que ñaari mbër ñoo mel noonu te Boy Niang bu songee la dégeer du ci jëlee lu ko neex mu nekk combat boo xam ne nee na warul sax ñu koy taxaw parfois parce que ay nul lay mujjee rek. waaw parce que Abdou Gueye de tamit ba tey mën nañu wax ne technicien la parce que mooy entraîneur écurie Fass di magu Tafa Gueye Euh, combat bi nag comme loolu mu si wax ne que ñu ko dëggee quatre-vingt-dix pour cent ci nii lay mujjee waaw mën nañ ko ci xaar parce que lu tax ñaari mbëri façon bi ñuy bëree la. yaa ngi dégg parce que chaque jour moo wax leen ne Lac de Guiers bëreem dafa wóor bëreem da koy tëj pour nga ubbi ko nag lu jafe jafee jafe la yombul parce que gis nañ ay kombaam yépp ni muy doxe booy ñaar itam bëre mag lay bëre bëre mag mooy maanaam fi muy débuté da koy xam fa muy yemee da koy xam te itam Euh, loolu nag su amee ci ñaari mbër yoo xam ne ku ci ne am na façon booy bëree am na nooy bëree yaakaar naa ne bu ñu bëree am na temps boo xam ne bu ñu ko rombee rek pour bëree ba maanaam day yomb bu ñu bëree minutes wala 5 minutes te ji la amul kenn dootul nangoo joxe sa bopp te boo xoolee loolu moom mujj ci combat bi Abdou Gueye vraiment loolu mu wax yaakaar naa lu constat bu ñu def la parce itam du lu nga xam ne nii lu ñuy lu ñuy jeex la lu lu ne fàng la ñoom ñaar vraiment ni ñu bëree boo suba xalaat naa noonu la ñuy bëree te buñ ñu bëreewaatee mën naa mujj yaa ngi dégg la mu wax tamit ci côté song bi xëy na am na loo xam ne mooy comme li ma wax rek booy ñang du xaru ngir def ko wala bu xaroo ngir def ko moom yaakaar na a réservé moo xam ne da nga koy songu rek daan ko waaw moom songu ko yomb na waaye daan bi yaa ngi dégg ba tey loolu mu wax tamit ne Lac de Guiers mbër bu mën a bëree la waaw dama ne naan mbër tëlewul bëree parce que li tax tëlewul bëree mooy moom na xeex te du da nga koy mënoo ko songu rek daan ko te moom bis bu war a exploiter dara ci yow dina ko exploiter te des fois li ma ci gis saa yu ko exploiter da koy réussir benn yoon laa gis mu bett mbër jël ko mu rëcc mooy combat ak Modou Lo bi mujjee wala boo xoolee bi muy wàcc di jël Modou loolu mel lu ko bett tël la ko def jëb moom mais Modou fexe na ba génn ci mais loolu bëriwul lu mu koy def mbër mu rëcc kon itam loolu lépp mën nañ ko dajale daal muy ay mbir yi nga xam ne nii ñoom ñaari kaay nag ku ci bi war na servir leçon pour sa prochain combat parce que itam amateurs yi xaaruñu ay combat yu genre combat yu mel nii daal vraiment gënalu leen ba tey ci jàngat yi def euh, ci yéen ay sunu lamb tamit ñëw si li nga xam ne ni mooy carrière Lac de Guiers ndax nee na boo seetee combat yoo xam ne dafa bëri litige combat sans verdict combat disqualification combat nul euh, Lac de Guiers moo battre record yi ci yooyu combat ci ay nul ak sans verdict ak disqualification moom moo battre record yi. waaw loolu suñu làmb xëy jàngat ko wax ko ah. ah waaw loolu moom jàngat la parce que mook Boy Niang tey ku ne xam ne ne combat bu match nul la ñu wax. mu mook Modou Lo itam seen combat bu njëkk noonu la woon mook Eumeu Sène seen premier combat noonu la woon ba ci mook Modou Lo bu mujj sax Modou gagné na ko mais par avertissement mais nag euh, boo xoolee bu ñaari ci combat ak Eumeu Sène bu njëkk ba bëri nañu bëri bu metti xeex xeex bu metti mais li ma la wax chaque jour rek Lac de Guiers moo jafee daan <laughs> yaa ngi dégg ñu mujj ñu mujj mat si diin mook Modou Lo bu njëkk ba it gis nga noonu la fa demee bu mujj bi itam bëree am na xeex am na mais maanaam pour moom pour daan ko moom bañ a daanu moom da ko jaral lu ne moom moom daanu moom du ko du ko du ko nangu te it nag loolu ci benn côté mën nañ ko nangu parce que kenn ñëwul ci làmb ji di daanu yaa ngi dégg pour daanu loolu la mais nag euh, loolu ñu def comme jàngat que ni ay combat na na ah loolu itam constat bu ñu def la defe naa am na ndax ñaari yoon bëri na ko Modou Lo bëri na ak Eumeu Sène ñaari yoon bëri na ak Boy Niang mook baa booy sans verdict loolu lépp ay seetlu yoo xam ne yu ñu taxaw def la kon nag moom itam loolu rek war na ko servir leçon ci les ci carrière am parce que am na loo xam ne ni gars yi dañu bëgg mbër boo xam ne des tamit boo ñëwee da nga teg euh, da nga andi safara mais itam nag du taxit du terew te taxut nag ñu ne la bul ànd ak sa xel bul xool li ngay def noonu bëri de bëri nag da ngay moytu ba doo daanu loolu tam am na solo trop ci làmb seeti Mama Lamine moom it di waajal combat am kii di Jokel mu ngi xamal ni adversaire am rek du moom mooy ki nga xam ne moo koy téye parce que moom ci dynamique euh, de victoire la nekk te dafa fas yéene continuer li nga xam ne mooy yoonam. waa Mama Lamine de loolu la wax tey ci sunu lam maanaam daal Jokel du ma freiné mënuma tere yéeg te sant damay dem wax loolu nag li ma la waxoon rek sax du dama koy waxtaal gis nga lamb moom. mbër mi li muy wax avant combat bokkul ak bu ñu duggee si géew bi réalité géew maama nag bëgg-bëggam la ak yéeneem jokkeel itam boo ko laajoon danaan la koy arrêté rek muy nekk wax joo xam ne communication la ba ba làmb jay am bu arbitre soufflé nag réalité moom fa lay amee ñoom ñaar ñëpp nag ay xale lañu Fallou Ndiaye jox na leen sens pour le 27 dinañ xam ndax maama jokkeel da koy téye wala jok maama day bañ jokkeel téeku loolu moom bis bu arbitre génnee seen diggante moom sa la ñuy amee lu leer naññ ay sa fay waay incha allahu rabbi ñu dem euh, Leewtoo fekk ki nga xam ne ni mooy Boy nga séq ak moom waxtaan bu yaatu Babacar est-ce waxtaan bi nga xam ne Boy Niang séq na ko Leewtoo. waaw mën nañ cee tuuti rek li ci des bi bu duggee nit ñi dañ ko seetaan xam naa léegi mu dugg moom nag ñëw na a baax si combat moom dafa jàpp ne moo daan loolu la Boy Niang jàpp. parce que na sax ak seen recours ngay dégg moom loolu la jàpp jàpp na ne itam Lac de Guiers xanaa moom yegg na ba ci ne waru sax di ndamoo ne man am na ay quatre appuis ci Boy Niang di ko di ko ndamoo parce que tasi mu doon wax ak li mu jëfe du benn waaw loolu mooy ay waxam yaa ngi dégg Balla Gaye nag attaqué na ko moom da ko attaqué nëbbu ko moom. attaqué na ko ci Leewtoo waaye loo ci mën a dégg daal na gaa yi dem xooli ko foofu mu mel ni ki daal kombaa bi jeex na waaye coow laa ngi fi des waaw nekkul fi mu nekk nii waaw lii waaw coow li nag moom làmb nag coow la baaxoo waaye moom coow li moom dakkagul ndax rëkku yi génnagul te dina génn te bu xalaat naa bu génnee coow li dina gën a bëri voilà waaw. ñu jeexal ba tey ak euh, open press ki nga xam ne mooy Tyson 2 fële ca Ndayane démb la woon mm-hmm. Leewtoo teewaloon fa internet mais tamit mu ñëw ci combat am ñëw tamit ci li nga xam ne mooy 100 pour cent Pikine bi nga xam ne nee na gisu ci boppam. waaw loolu la dem dem nañ Ndayane fekki ko fa ah muy def open press am vraiment waa Ndayane yëpp génn encore une fois ñu ciy profité di nuyu waa Ndayane rawatina nag. joomeen yi nga xam ne ñooy samay mbokk nekk foofu ca ndaayaan waaw wax na foofu moom am nañ fa part bu responsable am ñi sant joom kon ñi sant joom nekk ndaayaan yëpp maa ngi di nuyu ma wax na ko nee maa ko dàq bëri maa ko ëpp doole la ma def defu waaw nee na 100 sa 100 parce que sax mu leen dàq bëre rawatina nag ka ne ca bopp ba muy Modou Lo nee na ñoom ñëpp kuñ ndax neen xamante nañu loolu nag waxam la waaye li ci am solo rek la ma la waxoon la rek mbir mi moom balaa leer ñu dem arène nationale ca gannuuf ga xam nga gannuuf. kon jeex na xam nga moom gannuuf daa dis trop ay safa la ilaha illallah ñu dee andiloon euh, mbokk yi suivre Leewtoo TV li la ñu andiloon seen revue de l'arène may gërëm Mame Talla Chéri Lebu ci caméra bi di gërëm euh, Ousmane Yàgg équipe Leewtoo TV yëpp ñoom Biram Ndey Kumba képp koo xam ne rek yaa ngi Leewtoo ñu lay nuyu bu baax di béggee képp koo xam ne rek internet nga di suivre Leewtoo TV di ñu dooleel à chaque fois Babacar. noonu lay demee Aïcha encore une fois rek dañuy jégluwaat internet yi ah, di leen wax ne que ñun euh, lépp lu ñu fi wax rek. su ngeen jàppee ne lu jubul la rek woo leen ñu jubbanti ñu parce que nit matul suñu sañoon du ñuy wax dañuy satisfaire ñëpp mais loolu yàlla moo ko mayul ab jaam dañuy jéem rek lu ci jub suñu borom nu dimbali mais lu ci dëng itam suñu matadi la yaa ngi dégg waaw l'essentiel que nag euh, li ñu warloo ak yéen mooy que ni ñun saa yu ñu xëyee dinañ jéem a def le tout pour que ngeen bég waaw bu ca njuumte amee itam ngeen jéggal ñu parce que loolu mooy àddina kon encore une fois internet yëpp maam Modou Guèye ñoom Ousmane Diop Mamadou euh, Kaolack jàlloo ca Lisbonne ñoom Dabaax Norvège Cissé ca Brésil jiite fans club Leewtoo bi moom tam duñ ko fàtte 100 pour cent Babacar bi soppe Babacar yi ndax kuy soppe Babacar rek soppe Leewtoo nga ñoom ñëpp ñoom Grand Laye Jib seen Kodi Jiga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom faat Fatma Fall Bergamo xam nga du ma ko fàtte Baye Sall Paris tuuti yaay Sarr Khadiroos Ndiaye fépp fu waay nekk te bëgg Leewtoo di ko bëggee ah Gora Afrique du Sud ñoom Seydou Côte d'Ivoire ah ngañ sow ca États-Unis d'Amérique mais sama doomu nday sama rak Youssou Ndoye l'international maa ngi koy nuy bu baax a baax a baax di nuyu yaayam sunu yaay soxna Penda Diawara di ñaanal ñëpp jàmm ay sa fay di wax ne que Coupe d'Afrique bi daal yàlla nañu ko jël ci kàttanu yàlla ak yonente bu baax bi sallallahu wa sallam ajjuma loolu di ko ñaanaat di ko ñaan yàlla yàlla nag ñu defal loolu ñu jël coupe d'Afrique bi mais itam mention spéciale Khadim Dia Khadim Balla gay maa ngi koy nuyu bu baax a baax gis nga laaf mii dafa seer bay bëgg a dee moo ko jënd jox ma ko kon sëñ Khadim maa ngi lay nuyu di waat ñaan mais itam nag duñ fi toog ba jóg tey te jaalewuñu sénégalais yi parce que Ousmane Tanor Dieng yaakaar naa république u Sénégal moom ci li ñu digg ci ñuy wax ñëpp delloo nañ ko njukkal te moo ñàkk kon nag loolu su amee kon du ñu mën def lu dul jaale ko Sénégal yépp mais jël njaal mi jox ko président Macky Sall di ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook bépp julli bi mu fa fekk àddina mu ngi noonu daal demal la maa ngi ñëw ñi fi des du ñuy jàmbaar ñi demit ñàkkuñu fulla dogal bi moom kenn na ko yor mu azza wa jalla di buur bi tabaraka wa taala ay sa maa lay gërëm bu baax a baax